والنهاية <clears throat> نيجي فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي فصل لي فصل فيما ورد كلا وردنا في صفة خلق العرش تملو بند عرش والكرسي يا كرسي درس بي <clears throat> لم نتي جانجل موي بندقي يالا بند عرس الكرسي اك لوح المحفوظ اك برب يمنن تدو تي القران اك تي سنه اك تاني ملو او ووتي ييغا خامن بروم خم خم يي نانسي موتاخ لي لغي دينا اندي اي حديث يي اك اي روايه يي pour wone borom xam-xam yi wuute nañ ci mbir mi mm-hmm. qaala wana allahu yàlla taala kawane ne rafiu darajaati yàlla mooy yëkkati daraja yi ولا يالا موي ادي ييكاتيكو درجه ذو عرش موي بروم عرش كون فوف يالا تودنا فارس وقال وانا تعالى يالا مكمنه فتعالى الله يالا كوينا الملك مولي بور الحق بدي لا اله بن بور من رجام اله الموي موم رب العرش موي بروم عرش الكريم بتدبي لا اجي غافر الايه 15 لا اجي المؤمنون ايه 116 وقال وانا لا يلن لا إله بن برب ورجاو إلا هو الميمم رب العرش مولي برم عرس العظيم بأجمع كوكو نمل لا اي 26 وقال وانا يلن وهم الغفور مواجي جيغل كتوب الودود مواجي صبو ka jéggalu zul arshi mooy borom aras al majid mu aji tedd kooku البروج buruj la suratul buruj 14 kon yàlla tudd na aras بن lu dul benn waqaala wax na taala yàlla mu ko ne rahmaanu yàlla mi di rahmaan nga xam ne mooy joxe xewal yëpp istawa yemoo na aras ci kaw aras bul dégg yemoo ga rek nga jàpp ne yàlla dafa toog ci kaw aras ndax aras atnut yàlla léegi léegi rek da nga gis ci darsu bi ne danañ wax ci ay hadis ne aras mu ngi ci kaw asamaan te fekk aras aras nekkul ci kaw asamaan direct da koo faree kaw rek mais asamaan am na leneen lu nekk ci kaw kon nangam mu ngi ci kaw nangam tekkiwut daf cee toog te istawa yemoo na istiwaaw dafay firi dafa am ay maanaa yu bokk na ci maanaam not na istawa ala arshi not na aras moo gën a yàlla ñu ne yàlla mu ngi toog ci kaw arasam ndax yàlla amul attan ndax mu ëpp ñëpp kattan mm-hmm. laa jooju taaxaala aaya cinq wa qaala wax na moom yàlla ba léegi ne su mastawa topp mu yemoo yemoo ala arshi ci aras yàlla yemoo na ci aras wax na ko ci araaf aaya cinquante كن في غير ما آية تشرر بين آية من القرآن تشال القرآن يا لتدنا شارس <laughs> وقال وانا تعالى يا لمكوية من الذين قاعدين قمنا يحملون دنيا على شارس ومن حوله أنيور عرس يسبحون دنيا سبار بحمد ربهم دي سنت سن برم ويؤمنون دنيا قم به برم بو ويستغفرون دنيا جيقلوا للذين قاعدين قمنا آمنوا قمنا rabbana yow suñu borom ña wax naan yow suñu borom wasi'ta daj nga kulla shay'in lépp lu nekk rahmatan ci yërmande wa ilman ak xam-xam ñi yéen aras ak malaaka yi war aras foo leen fekk ña ngay sabbal lamboo sant seen borom tey gëm yàlla tey jéggalul jurit ñi moo tax jurit lu am solo la malaaka yi sax dañ koy jéggalul ñu ngi naan yàlla sa yërmande dañ na lépp lu nekk waaye sa xam-xam dañ na lépp lu nekk kon bul wax ne yërmande yàlla du laal diw yër yërmaane yàlla dañ na fu nekk bu bokk ak waa jooju nga xam ne daroon wax naan diw yàlla du ko yërëm yàlla ne yërëm na diw moomu jéggal ko mbugal la yow laa jooju xaafir la aya sept wa qaala taala yàlla wax na ne wa yaxmil dana yéen arsha rabbika saan su borom fooqoom seen kaw yow ma isin kerek bis boobu samaaniyatun juróom-ñetti xeeti malaaka juróom-ñetti xeeti malaaka ñoo yéen aras kooku alxaqatu la aya di sept وقال تعالى يا المكرم وحنا وترى نجس الملائكة ملائكة حافين ينور من حول العرش تلا ورارس يسبحون نجس سبال بحمد ربهم سنت سنبرم يوم القيامة بيا لا تنجس ملائكة ينور عرس دي سبال لامبو سنت سنبرم وقديني أت بينهم دقنت من دفي بالحق تدق وخيرا يوقف قلنا بولين حتى الحمد لله الله أن يلا رب العالمين كبر من دفي يوم القيامة بيا لا من دفي malaaka yi ñu nga wër ca la aras mm, di sabal lamboo sant seen borom yàlla attee ñëpp ci dëgg bu attee ba pare nag la ñuy tëjee atte bu mooy alhamdulilahi rabbil alamina atte bu ñu tëjee alhamdulilahi rabbil alamina jàmm rek fay xew <laughs> wa fi duaa il marwi nekk na ci ñaan guñ solo fi saxi ci hadis bu wér fi duaa il karbi ci ñaan ak mm-hmm. ñaan gi ñaan ak la waaye tudd nañ ci aras لا اله الا الله بن بور بن ورا العظيم الا الله لما يلا لا اله الا بن بور بن ورا جامو الا الله لما يلا العظيم اجي مغ الحليم اجي لويت لا اله الا الله امود بن بور بن ورا جامو لما يلا رب العرش مي برم عرس العظيم اجي مغ لا اله الا الله امود بن بور بن ورا لما يلا رب السماوات مي برم اسمان جروم نيار ورب الارض مي برم سوف جروم نيار rabbul arsi mooy borom aras al karim bi aji tedd mhm. lii ñaan gu la pour njàqare jaadis bu wér dégg nga yalla tudd na ci aras foofu maanaam ñaan gi yéen tudd na ci aras ñaan ak njàqare la kon boo amee njàqare waxul loolu di wax laa ilaha illa allahu al azimu al arshi al arshi al karimi تودنا شي عرش نهار يوم مهم نانقل وقال وانا الامام احمد ان حدثنا وقتانا لن عبد الرزاق حدثنا وقتانا لن يحيى بن علاء عن عمي مجلس بيتهم شعيب بن خالد ان حدثني وقتانا لما سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن عباس بن عبد المطلب قال من كنا نكون جلوسا دويتوك ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء قوري مكيا فمرت صحابة أبني نير رمبو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وحنا أتدرون رقم جن ما هذا لويلي قالوا ينكو قلنا قال صح آه، عباس قلنا أن أصحاب النير لا قال ينتني والمزن النير قال عباس ينا أن ينكو مزن النير قال ينتني ولا أغانان <laughs> قال mu ne fa sakkat naa ñu daal di noppi ba mu waxee loolu fa xaal yonent ne hal tadruuna ndax xam ngeen kam béy na samaa yi lan moo nekk si diggante asamaan juróom-ñaar wala rek suuf juróom-ñaar xaal abbas ne xul naa ñu ne ko allahu wa rasulu yàlla ak yonentum aalamu ñoo gën a xam diggante asamaan suuf distance bi nu mu toll saxaaba yi ne ko yàlla ak yonentum a gën a xam xaala bu ko defee yonent ne baynahuma nekk na seen diggante masiratu xam si mi ati sana dox ak juróomi téeméeri at mm. diggante asamaan ak suuf mat na juróomi téeméeri at wa min kulli samaayin nekk na bépp asamaan ila samaayin jëm ci asamaan masiratu xamsi miati sana diggante asamaan ak morom ku ne mm. diggante bi juróomi téeméeri at la mm. dox bi kon diggante asamaan suuf dox ak juróomi su nekk ak moromam seen diggante mu ngi mel ni dox ak juróomi téeméeri at na si bépp asamaan déedéet wamin wa kisafu kulli samaayin tatak bépp asamaan hmm. masiratu xam si miati sana dox ak juróomi téeméeri at la hmm. asamaan su nekk ni mu dëgëree moom ci boppam hmm. ni tale boo ko doon xëtt di ko jàll dara mat juróomi téeméeri at distance boobu la tale ni diggante asamaan suuf mel asamaan su nekk moom si boppam noonu la talee te diggante ak morom ka beneen asamaan si topp mm, noonu la yaatoo lépp dox juróomi téeméeri at la Mm-hmm. wa fooqa samaay saabia nekk na si kaw asamaan juróom-ñaar ba baaxarun géej xam nga dañuy wax léeg-léeg dañuy dégg si hadis ñu ne aras mu ngi ci kaw asamaan fekk kaw asamaan juróom-ñaar géej mm-hmm. yi nekk na si diggante suufu géej ga wa alaahu ak kaw géej ga kama mm-hmm. benn samaay nekk diggante asamaan juróom-ñaar wala adda géej ga suuf ga ak kawe ga dox ak juróomi téeméeri at la mu ngi mel ni diggante suuf ak asamaan rek su ma fooqa zaalika topp na nekk na ci kaw géej googu samaanitu aw aalin juróom-ñetti sikkati doj ay malaaka lañ ci na mu nag mm. dégg nga ñoo nekk foofu bay na rukka bihin na nekk na seen xoom ye wa aslaafihin na ak seen weeya kama bay na samaay li nekk diggante asamaan juróom-ñaaw laat suuf ñaaw sikkati doj yooyu mm. seen xoom ya ak weeya na ni diggante asamaan ak suuf mm-hmm. maanaam dox ak juróomi téeméeri ثم فوق ذلك توب نيكنا سيكو لولو العرش عرس بين أسفل نيكنا ديغن سوف عرس وأعلى أكو عرس كما بين السماء نيكنا ديغن أسمان جرم نار ولا دك سوف جرم نار كو سيكت دجو يو عرس فنيك ديغن تي عرس سوف سوف عرس بچي كو عرس مو مين ديغن أسمان دك سوف من نكو أبو نكو نك ندق أمني أمني حديث يعني جانغ يوانا ديغن كو عرس جن نا كو لولو جانغ تدو ليم لتحن يتاكو كفوف mën nga tudd lim pour wane ne mat na lii mais tekku ne ëpp na ko ba léegi dégg nga comme ni ma asamaan yaatuwaay ba aljana yaatuwaay mooy asamaan ak suuf waaye xam ngeen ne yaatuwaay aljana ëpp na asamaan ak suuf rek li nga xam ni moo tolloog si sa xel kon diggante asamaan ak suuf juróomi téeméeri at la dox ak juróomi téeméeri at asamaan si boppam su nekk ni mu taree dox ak juróomi téeméeri at la soo ko rombee digganteem ak beneen asamaan si sopp dox juróomi téeméeri at la mm-hmm. soo rombee asamaan juróom ñaareel am na géej gu fa nekk goo xam ni suufam ak kawam moom géej gi mën na dox ak juróomi téeméeri at mm-hmm. soo ko rombee am na ay sikkati doj yoo xam ni seen hóomiya ak seen weeye rek toll na ni diggante asamaan suuf dox ak juróomi téeméeri at mm-hmm. kaw sikkati doj yooyu nag ci la aras nekk diggante suufu ras ak kaw aras mu ngi mel ni dox ak juróomi téeméeri at comme diggante asamaan ak suuf walla yàlla fooqa zaalika mu ngi ci kaw aras wallaahu fooqa zaalika nag tekkul ne dafa toog comme ni nga xam ne asamaan su nekk mu ngi ci kaw asamaanu ñaareelu waaye sësante wuñ mhm. yàlla dara attanul ko te du làmboog benn mi def du jaxasoog benn mi def hmm? mhm. wala si nekku yax faa di nëbb alay si moom min amaali bani aadama si jëfi doomu aadama yi séewun dara jëfi doomu aadama dara du ji nëbb yàlla mhm. yàlla lépp la xam dégg nga aras nag danañ jàng ci xadis yi di ñëw wala ci biir darsu bi liy wane ne aras dafa ëmb kawnu bi yëpp mhm. teewul am na ñoo xam ne noonu dafa nekk ci kaw mbindeef yi rek maanaam mbindeef yëpp aras a leen faree kaw mhm. mais teewul danañ jàng liy wane ne dafa ëmb lépp mhm. aras bu mënee ëmb lépp nag te muy mbindeef faree lépp teewul moo ëmbu lépp yàlla moom waxtuñ ko fekk dafa ëmbu lépp yàlla moom toog si kaw aras rek hmm. dajul fépp yéggul si suuf rek si asamaan rek la nekk su boobaa aras sax moo ëpp yàlla far hmm. moo gën a yaatu te yàlla amul amul lu ku ko ëppale meloom hmm. bokk na si melo yàlla yi yaatu inna laa waasiun alim yàlla dafa yaatu melow yàlla làmboo kenn ëpp ko ko amut dara gënul yaatu yàlla te bu fekkee yàlla moo gën a yaatu aras xajul si aras bokk na si melo yàlla yi al quwatu kàttan wa anna al quwatu lillaahi jamian kàttan lépp yàllaa ko moom aras mënul am kàttan boo mën a xenu bi ñii ñii ñu ko lafzu imam ahmad mooy baat bi imam ahmad nettali wa rawaawu nettali na ko it abu daawuda abu daawuda nettali na bi wa ibnu maaja nettali na ko wa tir tirmiziyu nettali na ko ñoom ñëpp min hadis simaak ñu ngi ko jëlee si hadis simaak hadis bi xam nga simaak si lañ ko jëlee bi isnaad yi ci naxwu ci même isnaadu simaat bi kon hadis bi abu daawud nettali na ibnu maaja tirmizi ñoom ñëpp nettal nañ ko ci comme isnaad bi nga xam ni moom lañ passé léegi. isnaad mhm. bi mooy ñi nga dégg ñuy jàng balaa ñuy wax xadis bi ñooñu ci lañ jëlee xadis bi. Mhm. waa nettal na Sharik baada hadal xadis lenn ci xadis bi an simaak jëlee ko ci simaak. Mhm. nettalu lépp waaye lenn ci xadis bi moom it nettal na ko waqafu mu def ko mawquuf mawquuf mooy xemale ko si saxaabi yooy rek ne saxaaba sangam moo wax nangam. xadis yi ñuy jàng nii. ci riwaaya imam ahmad bi ak abu bi nga wax ne abu daawud nettali na ko ibnu maaja dañ ko def marfon maanaam dañ ko yëkkati ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi di nettali mm-hmm. mais nag sharik nettali na lenn ci hadis bi jiitu woon bi ñu jàng mm-hmm. léegi mais daf ko def waqfu si saxaaba bi saxaaba bi di nettali wala bu abu abi daawuda baatu abu daawuda mm-hmm. abu daawuda nettaleem wute naag lañ jàng léegi tuuti rek am na lu ñu wutee moom lay wax nag ne li abu daawuda wuteeg lafzu imam ahmad bi baat bi nga xam ne moom lañ jëlee ci imam ahmad hmm. abu daawud dafa wax ne waal tadroo ndax xam ngeen bondement benn samaa yi diggante li nekk si diggante asamaan juróom-ñaar wala ak suufi juróom-ñaar nu mu soree ndax xam ngeen ko hmm. noonu la yonumtu wax xaalu ñu ne laa nadri xamuñ xaala mu ne bondement baynahuma distance bi nekk si diggante asamaan juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar hmm. imma waaxidatun imma benn a benn la wax awi sin taane wala ñaar usra satun wala ñett wa saboona sana ak juróom-ñaar fukki at raawi sikk la ci aji nettali ji yurumtu sikkul hmm. nee na ci lafzu bi abu daawuda nettali hmm. daf ne diggante asamaani suuf juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar mu ngi toll ni juróom-ñaar fukki at ak ñett wala ak ñaar wala ak benn hmm. ki nettali xadis bi moo sikk xamul ñett la wax wala ñaar wala benn wal baaqi li des ci xadis abu daawuda nax naxwu mu ngi mel ni xadis bi jiitu rek dañ ko jàngee leneen yëpp noonu la ko waxee fii daal lañu wutee hadis bi ñu jiitu moom daf na diggante asamaan juróom-ñaar ak suuf juróom-ñaar juróomi téeméeri at la doxab juróomi téeméeri at. Mhm. kii ne nag juróom-ñaar fukki at ak ñett wala juróom-ñaar fukki at ak ñaar wala juróom-ñaar fukki at ak benn. Mhm. ñaari riwaay yooyu bokk na. Mhm. mu nettali beneen xadis ci Abu Daawuda ne waqaala waan Abu Daawuda. beneen xadis boo xam ne dafay wax ci wàllu xaras ne xaddasanaa nettal nañu Abdul Aala bun Hamad wa Muhammad bun Musanna wa Muhammad bun Bachar wa Ahmad bun Saïd ak Ahmad bun Saïd Arribatiyu qaalu ñoom ñëpp ñu ne xaddasanaa nettal nañu wax bu bun Jarir wax bu bun Jarir qaala wana Ahmad ne katabnaahu bind nañ eh, hadis bi min nusqatihi ci bindam haada lafzuhu lii mooy baatam hadis bi Abu Daawuda eh, ci lañ ko jëlee Ahmad nee na nii lañ ko bindee nii lañ ko fekkee ci mbindam moom qaala wax na bun jëri ne xadasana netta lane abi sama papa qaala mu ne samitu dégg naa hmm. muhammad bun ishaqa muhammad bun ishaqa yu xadisu muy nettali an yaquba bun uquba jëlee si yaqub bun uquba hmm. an jubayr bun muhammad bun jubayr bun mutim jëlee si jubayr doomu muhammad doomu jubayr doomu mutim hmm. yaqub bun uquba moo nettali jëlee si jubayr doomu muhammad doomu jubayr doomu mutim an abi mu jëlee si boobu moo jëlee ci baayam Jubayru doomu Muhammad la man jët ji bàyyam boobu jëlee si ko doomu Jubayru la dégg nga la maamam ak bàyyam yëpp mm-hmm. Yanqub bu noq ba mu jëlee ci Jubayru doomu Muhammad doomu Jubayru doomu Mutaim mu ne Jubayru moom moo jëlee ci bàyyam jëlee si maamam te tudd la bàyyam maamam xaala mm-hmm. mu ne ataa dikk na rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ataa dikkal na dafa am sàmm bu ñëw yonti fa xaala mu ne yaa rasulullah yonent yàlla jahadat sonn na alan fu si bakkan yi wa jaat xiif na al iyaalu njaboot gi wa nahakat alkuna al amwaalu alal yi wa halakat alkuna al anaamu jur yi fastasqilaaha sàkkul ndox sàkkul nàndal eh, fastasqi na nga sàkkoo nàndal allah yàlla naa ñeel ñu ñaanal ñu yàlla mu nàndal ñu fay naa naka ñun na station dinañ sàkkoo ramm bi ko ci yow la laay ci yàlla mm-hmm. maanaam bu ñu amee nga toroxlu ñu ci kanam yàlla ñaanal ñu yàlla ba yàlla fajal ñu soxla boobu wana sas fu sa sàkkoor mu bi laay ci yàlla alayka ci yow mm-hmm. bu amee soxla ci yow ci yàlla la jaar yàlla ñëw ñaan la ba nga def soxla boobu mm-hmm. subhanallah xam nga koy ñaan dafa fekk mu gën laa kawe nga am soxla jaar si yonent bi mm-hmm. mu ñaanal la yàlla de ba yàlla nangul soxla boobu man naa nekk waaye nga am soxla ci yonent bi jaar ci yàlla yàlla ñëw di ñaan yonent loolu xam nga ne mënu nekk parce que yàlla warul ñan kenn moo gën a kawe ñëpp ki ngay ñaan daf laa war a gën a kawe ba mu waxee ñaari jumla yooyu fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yonent bi na ko way xakka taskara ñeel na la atadri ndax xam nga maa taqul li ngay wax wa sabaxa mu sabaal rasulullahi yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam fa ma zaala dañut yu sabbihu di sabaal moom yonent bi xatta urifa bañ xam zaale ku loolu fi wujuhi asaabi ci kanamu saxaaba mi mm-hmm. yonentu di sabaal di sabaal sabaal mooy sellal yàlla ci li waa ji wax ni yàlla yàlla set na ci mm-hmm. di sabaal ba boo xoolee saxaaba yëg ne am na lu leen naqare ndax li waa ji merloo yonent bi sallallahu su ma qaala topp yonent ne way xakka toskara ñaan la la innoo naka li am ba am laa yusta son duñ sàkkoo ramm billaahi ci yàlla ala ahadin ci kenn min xalqi ci min defi mhm. soxla ci min def dara jaar si yàlla naan ko yàlla ñaanalal ma diw mhm. loolu mënu nekk nax yàlla du kenn mhm. dàqut nga jaar si yonent bi dem ñaan yàlla yonent bi ñaan la yàlla loolu dàqut ko nga wax yonent bi mu ràmm la ci yàlla hmm. loolu da yonentu dàqu hmm. lam dàq ci hadis bi mooy nga am soxla ci mbindeef hmm. ne yàlla dama ñaanal ma mbindeef diw <laughs> loolu loolu xam nga ne yéenul maanaam chanmulaa yonentu ne ko mbiru yàlla azamu min zalik moo gën a loolu woy xàkka toskara ñaan la la tadri ndax xam nga man lan mooy yàlla inna arshahu naka arasam ala samawaati ci kaw asamaanam la hakaza comme nii la wa qaala mu wax bi asaabi ci baaraama mi mislal qubbati dafa mel ni mm, dégg nga ab nen ale yi ci kaw asamaan si mhm. maanaam aras dafa roo dafa junj ci baaraam yi euh, sësale ñaari cetu baaraam yi xam nga boo sësalee si ñaari cetu baaraam rek mhm. dafay me dafay ron mhm. mu ne aras noonu la rooyee ci kaw asamaan te ku ne nag euh, asamaan du ko ëpp aras ëpp asamaan fuuf ko jàng way noonu nag moom aras la yee itu mu ngi yëngatu bii ci asamaan euh, dégg nga way noonu nag moom ay yeytu dana yëngatu dégg nga maras, bihi ca ca barabam ba atita rahli raxli comme yëngatug dégg nga bi mm, rak bi ci aji war ci mhm. aras mu ngi yëngatu ngir disayam ak màggaayi yàlla ak foraayam ak la cay wàcc ci ay leer mhm. comme ni nga xamee ne bu bees bu ko aji war ware bu ci aji war waree ni mu yëngatoo ci kaw jur ga mm-hmm. noonu lay aras di yëngatoo mm-hmm. Misal la rek waaye yëngatu aras mooy raw mooy raw loolu mm-hmm. teewul nag am na ñuy bañ yëngatu aras gi mais aras comme que mu ngi sàbbaal rek jombul mu yëngatu amul problème dégg danañ wax hadis yi ñi nga xam ne nanguñ ibnu bachar fi hadis yi ibnu Bashar ci riwaaya bi ñu nettali léegi mu ngi ca ahmad ibnu bachar wax na moom ba muy wax ci hadisam bi nettali na ko ne daf na inna laa naka yàlla fawqa arshi mu ngi ci kaw arsam xam nga riwaaya bii nii lañ ci jàng mooy inna arsu ala samawaati yi ibnu bachar mu li wax daf ne inna laa fawqa arshi yàlla mu ngi ci kaw arsam wa arsu ta arsam fawqa samawaati yi mu ngi ci kaw asamaan digg boobu rek xëy na la ñuy wutee foofu wasaaq mu maa ngi al xadis xadis bi xadis bi moom nii la ko indee moom ibnu bachar mais daf cee teg ne inna laa fawqa arshi wa arsuhu fawqa samawaati yi yàlla mu ngi ci kaw arsam arsam mu ngi ci kaw asamaan gis nga aras mu ngi ci kaw asamaan ta jàngoon nga léegi ci gannaaw ne aras eh, di eh, gannaaw asamaan géeje fa nekk géeje fa nekk mhm. kon bu ne yàlla mu ngi kaw aras bu yaakaar ne mhm. dégg nga ndax aras mu ngi ci kaw asamaan ñëw na ci hadiis rot na ci hadiis te tekkul ne aras dafa nekk ci kaw asamaan mhm. ndax mu ëpp asamaan foofu wa qaala abdul ala moom ci ñu riwaayé woon xadis bi ci la bokk wumnul musanna wumnu bachar ñoom wax nañ ne wax nañ an yaquba jëlee ci yaqub bun oqba wa jubayr bun muhammad bun jubayr an abihi mu jëlee ci baayam dégg nga an jëdd yi mu jëlee ci maamam comme noonu ni ko uh, waxe woon nga xadis bi passé abdul ala um, bun muhammad ak Muhammad bun Masana ak Muhammad bun Bachar. Mhm. ñoom ñëpp dañoo jële woon ci wax bu bun Jarir ñu topp riwaaya ba ci Yaqub bun Uqba. Mhm. ñoom it mm, wax beneen mm, riwaaya boo xam ne. Mhm. ñoom ci Yaqub bun Uqba dañ ko jëlee boobu mooy gën a gàtt. Yaqub bun Uqba. ak eh, Jubayr bun Muhammad Jubayr boobu jëlee ko ci baayam Muhammad mu jëlee ko ci maamam Jubayr. kon riwaay mooy gën a gàtt mm-hmm. kon abdul ala ibnu musna ibnu bashar ñoom it jëlee nañ ci yaqub bun oqba ak jubayr bun muhammad bun jubayr mu jëlee si baaya mu jëlee si mm-hmm. nga waaye wala xadisu xadis bi bi isnaadi ahmad bun said xadis bi ci isnaad xam ne ahmad bun said euh, ma ngi fa mm-hmm. nga huwa xam nga xadis bi njëkkoon njàng أبو داود نكفي إن حدثنا عبد الأعلى بن حمار ومحمد بن مسنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي boobu pare moom lañ jàng léegi moom la xadis boobu lañ jàng nettaliwaat ko nee na riwaay boobu Ahmad bun Saïd nekk mooy lu wér. Hmm. teewul amaan na beneen boo xam ne Abdul Ala bun Mus ak Ibnu Masna Ibnu Bachar jëlee ko ci Yaqub bun Uqba ak Jubayr bun Muhammad bun Jubayr an jët yi mu jëlee ko ci maam waaye nee na isnaad bi Ahmad bun Saïd nekk mooy lu wér. Hmm. kon moom xadis bi ñu jàng léegi muy xadisu atiit bi nga xam ne day wane aras dafay yëngatu di wane ni it nit ñëw na wax yonantu ne ko wax yonantu ne ko ram ram buñ soxlaa dañuy ñëw ci yow nga rammuñu ci yàlla ñaanal ñu yàlla mm-hmm. loolu kon wéeral na ko moom wutik nag ñi nga xam ne dañuy aay ram yonantu yonantu do rammu kenn yonantu yomal xiyaamati xam ne ni mooy rammu ñëpp mm-hmm. ci àddina it boo amee soxla mën na laa ñaanal yàlla yàlla fajal la ko mm-hmm. mën ta tawasul ci moom it yàlla faj ko loolu mën naa nekk mm. moom moom njariñ la ko joo xam ne nii dafay nekkal xeetam buy dund ak buy ak bu fi jógee mm-hmm. rahmatun hayyan wa maytan sallallahu nga xadis mm-hmm. bi ci bun bi nga xam ne ni ahmad bun saïd ma ngi fa mooy lu wér waafaqahu dëppoo naag moom ali ci xadis euh, bi jamaatun minhum ay mbooloo dégg nga ci ñuy nettali xadis mm-hmm. minhum na ci yaxya bun mahin dëppoo naag moom ci xadis bi wa aliyun ibnu madini wa rawaaw soloo na ko jamaatun mbooloo minhum ci ñuy nettali xadis an ibnu isaq jëlee ko ci ibnu isaq kama qaala ahmad aydan mm-hmm. comme ni ko ahmad waxee dégg nga ne mbooloo nettali na xadis ko ci ibnu isaq mm-hmm. wa kaana nekkoon na sama abdul ala wa ibnu masana wa ibnu bachar min nusqatin waahidin ci benn eh, kayit fi ma balaxani ci li ma jot nee mhm. na moom li mu yëg mooy ne li mu jot mooy Abdul Ala ibnu Masna ibnu Bachar ñoom ñëpp ñoo bokk fu ñu jëlee xadis ñoo bokk kayit mbind muñ ko jëlee mhm. moo tax ñaareel boo xoolee ñoom ñooy bokk fuñ ku leen ko nettali mhm. tafarada wéetoo na bi ci génne loolu Abu Daawuda ixraaja nag daf ko def tanis xëy na kon ci kayit bi lay dellu dégg nga Abu Daawuda moo wéetoo ci génne euh, nusxa boobu وقد صنف تعرفنا الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي جزءا ابقات في رد شديد وراء هذا الحديث بالحديث ابن عساكر من تالفنا أبكي بور بور بور دق حديث بين يرون جانج لك من حديث بيوان عرصت في ينغتو دينغا سماو تدينوكو ببيان الوهمين شلير الدفع والتخليط أك جخسي الواقع يقول في حديث الأتيد في حديث الأتيد حديث الأتيد ما حديث بيه نعرف ده إيه، في ينقط ممتاز إن أبقادنا ممكن تدي لير الجمتة وهم ما يلينا يا كارنون نترنون أجزاك سجين خم نيم ما في حديث بيه ابن عساكر دقنا حديث بيه واستفرغ مجيخ الوصول كاتنام في التعني سجم على محمد بن إسحاق بن يسار راويه كم نون جمنا محمد بن إسحاق بن يسار xam nga hadis bi eh, koy nettali gis nga si Muhammad bun Isaaq Muhammad bun Isaaq boobu nag moom la jam mi nettali hadis bi ay ay jam ko lu bëri wa zakara mu tudd kalaama naa si waxu nañu fii ci moom mhm. la borom xam-xam ñu wax ci moom ak dàq gañ ko dàq euh, yooyu tudd na ko ci euh, leeralam googu mhm. pour wane hadis bi wérut moom Ibnu Asakir mhm. dégg nga teew nag moom borom téere bi di bidaaya wa nihaaya moom nee na xadis bi ci isnaad ahmad bun saïd mooy riwaaya ba njëkk a jàng mooy lu wér walakin waaye nag qad ruwee nettal nañ hada baat bi min turuqi tariqin uxra ci yeneen yoon bi même bu fekkee muhammad bun isxaqa hmm, xam nga moom ñu bari ci ci moom lañ jëlee xadis bi mbooloo mu bari ci lay jëlee xadis bi ba ci ah isnaad ahmad bun saïd bi sax muhammad bun isaaq boobu ma ngi fa mu jam ko pour jam xadis bi waaye nee na du tee xadis bi am na yeneen riwaaya yoo xam ne nii nettal nañ ko te jógeewul ci muhammad bun isaaq ma tam ki waa ne qad ruwee nettal nañ hada lafdu bi lebaat min tariqin oxra ci yeneen yoon an gayri muhammad bun isaaq yu jógeewul ci muhammad bun isaaq kon xadis bi am na ay riwaaya yu bokkul bu fekkee Muhammad bun Isaaq moo doon problème bi ba tax mu dàq xadis bi am na yeneen riwaay yoo xam ne Muhammad bun Isaaq nekkut fa loolu dafay dëgëral xadis bi kon ndax fa rawaaw nett na ko Abdu bun Xamid bun Xumayd ak Ibnu Jarir seen tafsir fi tafsir fii tafsirayhima seen tafsir Abdu bun Xumayd tafsiram nettal na xadis bi Ibnu Jarir nettal na xadis bi tafsiram wabnu Abi Asim Ibnu Abu Asim wa Tabaraani ak Tabaraani ñoom nett nañ xadis bi fi kitaabay sunna si ñaari téere sunna lahumaa ñeel la ñoom ñaar kitaabu sunna li abi asim nettal na fa xadis bi kitaabu sunna li tabaraani nettal na fa xadis bi wal bazaar bazaar nettal na ko fi musnadihi ci téereem boobu ñuy wax musnad wal xaafis addiyaaw al maqdisi nettal na ko fi muxtaaraat yi ci téereem bu ñuy wax muxtaar xadis bi siw na eh, te nettali yooyu yëpp jëlewuñ ko ci Muhammad bin Isaaq mhm. جنجا نيوم نيوم نتلا نكون من طريق أبي إسحاق جليك سيون أبو إسحاق السبيعي أنا عبد الله بن خليفة جليك سيون أشي عبد الله بن خليفة أنا عمر بن الخطاب شي عمر بن الخطاب رضي الله قال من أتدكنا امرأة جيجن إلى رسول الله جل صلى الله عليه وسلم فقال من ودعو الله نيانا يالا أن يدخلني مدوغل مع الجنة الجنة نينا أب جيجن دفن يوشي ينتبه نكو نيانا يالا الجنة فعزمه ما قال رب برم تبارك رب برم بتبارك بني وتعالى كبنا وقال منكو إن كرسيه نكو سيسم با وشا أبنا السماوات السمان جوم نار ولا أدك سوف جوم نار وين لو نك نيال نكو أتيتن أجي ينغتو كأتيتي رحلي نمني ينغتو تك الجديد بس من سقل ينغي ديسا kon moom yëngatu gi doon bañ beneen riwaay ñëw دي saxal yëngatu googu di la riwaay bu njëkk bi aras la wax fii nag kursi la wax xëy na moom mu jàpp ne kursi bu yëngatu laaxar wa aras di yëngatu mhm. allahu alam dégg nga kon xadis e, bi daal am nay coow waaye lu mën a xew bu mën xew daal mooy aras mu ngi sàbbal yàlla te danay yëngatu mhm. ngir ay xew-xew hmm? ba yonentu di ko nettali kon aras a nga yëngatu yaakaar naa ne foofu benn problème نكفى عبد الله بن خليفة هذا بي بنت دني ليس بذاك المشهور بوكتا كسيوكي يعني عبد الله بن خليفة دنيوم بو أم kii nag nekkut ak bokkut ak ki gën a siw wa fi samaa yi nekk na si dégg abdoulaye bun xalifa bii min omar ci omar nasrun accidental abdoulaye bun xalifa bii ñuy wax ne moo moo nettali xadis bi jëlee ko ci omar dégg na ci omar wala déggu ci omar laaj na xoolaat kon su fekkee déggu ci omar xadis bi dafay nekk منقطع فهو مدق رواية بام نكو دق تي تي ديغنت بي دينو ثم منهم امنا شنو من يروي نكو نتري موقوفا مولين تخوال تي صحابة بي دينو امنا نيو خمني نكو نتري رك حديث بي منك موقوف نكو عمر بن الخطاب بي نتري رك وخنا يونتو بوكو نتري ومرسل امنا نكو نتري مرسل مو ابتابي جيلي كو شنو نتري صلى الله عليه وسلم wa minhum am na si ñoom man yaziidu ku yokk fii ci moom ziyaadatan gariba yokk gu tumuranke hmm. am na ñu solo xadis biir yokk ci leneen yu tumuranke yoo xam ni eh, des naa eh, des na doy na war daal hmm. wallahu alam yàlla daal moo ci xam kon ci gàttal xadis bi bëri na coow loolu lañu doon jàng ne hmm. am na ay riwaaya yu wutee waaye moom ba mu ca tànn mooy isnaad bi nga xam ne ni moom la Ahmad bun Saïd nekk te loolu ñu ngi ko jëlee ci ahmad ibnu euh, euh, nu mu tuddati euh, ci abu daawuda waaye nettali abu daawuda la dégg nga mm-hmm. waaye lay xulaasa xadis bi mooy arsh tudd yàlla tudd na ko ci xadis boobu te dafay sabbaal sabbaalam yooyu dafay dafay dafay indi ay biir ak yëngatu ndax sabbaal gi muy sabbaal yàlla loolu rek mooy moom lañu tënk ci mhm. wa sabara sax na fi sahih buxaari ci sahih buxaari an rasulillah jële si yonent ne yonent bi wax mhm. bu ngeen ñaan yàlla aljanata aljana fasaluhu ñaan leen ko al firdawsi firdawsi fa inna naka moom an aljanati moo gën a kawe ci aljana yi wa awsatul janati te moo gën ci yi mhm. wa fawqu nekk na ci kawam arshu rahman arsu yàlla kaw aljanatu firdawsi ci la arsu nekk léeg-léeg nga ne nga fekk ñu ne mu ngi ci kaw asamaan léeg-léeg nga fekk ñu ne aras mu ci kaw malaaka yi ñoo ko yàlla léeg nga fekk ñu ne aras mu ngi ci kaw aljana gi nga dégg si ne kaw gi tekku sës mhm. tekku sës ndax mënu sësandoor ci yooyu yëpp mhm. yurwaa dinañ nettali wa nekk na ci kaw aras bil fati ci fata faagi aras zarfiya muy zarf muy firi barab mhm. wa bi damm léeg-léeg ñu ko si damm wa fuuquhu <laughs> wa fuuquhu waaye wa fooqu it ba léegi kawam lay firi rek xaala mm-hmm. cheikhuna xafis al mizzi ne woowu ahsan damm gi moo gën a rafet ay mm-hmm. lu mas na mu wa alaa li muy firi mooy wa alaa nekk na ci kaw aras arsu rahman ci kaw aljana kon arsu rahman arsu yàlla mm-hmm. aljanatu firdaws kawam ci la aras nekk loolu daf lay wan ne leen buñ la waxee nangam mu ci kaw nangam tekkul ne dafa toog loolu nañ ko bàyyi xel ñu bari jaawal lañ foofu ba jàpp ne yàlla dafa toog ci kaw aras parce que da koo faree kaw rek dégg nga te waqat jaa dikk na fii baadi asar yi yenn ci asar yi asar yi asar ñaareel buñ ko waxee mooy luñ jëlee ci saxaaba yi ann ahlul firdaws yi na ñooñ firdaws yes moonu dañuy dégg atiital arsi yëngatu aras woowu moom atiit ba tasbihu mooy sabbaalam wa tanzimu ak màggalam yàlla kon yëngatu aras mooy sabbaal yàlla nga màggale yàlla mu ngi sabbaal moom loolu kenn du ci werante mhm. muy màggal yàlla kenn du ci werante hmm? te daan yëngatu ba yonent di ko nettali moo tax daanaka am coow loolu matu ko mhm. wa ma zaaka déet loolu illaa lu xub bi nu may jege giñ jege minu ci aras jege giñ jege aras moo tax dañuy dégg sabbaalu aras mhm. wa fi sax nekk na ci hadis wér anna rasulullah ne yonente yàlla bi salaa sallam qaala wax na ne laqad ihtazza yëngatu na arsu rahmaan arsu li mawti Saad bun Muaas ngir deeg Saad bun Muaas keroog ba Saad bun Muaas génn àddina aras dafa yëngatu mhm. moo tax nit ku baax génn àddina sa xaal jéqi ba nga jooy dara nekku si xam nga jooy nit tekku ne dafa demul aljana ah aras moo gën a xam ne saadu aljana la jëm mm-hmm. ndax nekk gi mu nekk nitu aljana sax moo tax aras di yëngatu mm-hmm. mais teewul ba mu génne àdduna aras yëngatu na rek pour war a ne ku màgg jógee def mm-hmm. léegi-léegi danañu jooy koo xam ni jooy ko garaawut war nañ koo jooy ndax njariñ li maamoon dégg nga du xam nga ne aljana la jëm nga jooy rek waaw nga rek hmm. yonent bi ah, Aboubacar ak Omar mos nañoo jug seeti kenn si soxna yonent bi sallallahu muy jooy ñu ne ko looy jooy yonent bi sallallahu alayhi la nekk ci yàlla moo gën ad adduna foofu hmm. te moom ci yàlla la dem mu ne jooyu ma ndax ne ndax sikk sakk la la yonent bi nekkee moo gën nekkam fii ci addunaam déet déedéet jooyu ma loolu waaye li may jooy mooy ne wax yu gënoon ñëw ci asamaan dagg na mhm. rek am Aboubacar Omar commencé jooy ñoom it loolu faa jooy nit ku baax jooy ko ndax moom fa jëm mais da koy jooy ndax sa bopp mhm. wala nga ko ndax wéetaay ga mhm. aras daan na jooy yëngatu di gësamu loolu mën nañ ko firee loolu lay jooyam ngir génn àddina Saad bun Muaaz jullit bu génn àdduna asamaan suuf sax dañ koy jooy ñooñ firawn nag ñoom fama bakkat alayhim sama wal ard yàlla neen ñoom asamaan suuf jooyuñ leen mhm. léeg-léegi nag jooy boo muñee moo gën waaye léeg-léegi jooy dara nekku ci wa zakar xaafis ibnu xaafis xaafis doomu xaafis te mooy muhammad bun osman bun abi sheyba tudd na fi kitaabi sifatil ars ci téere bu mu tuddee melo aras an baadi salaf jëlee ci ñenn mag ñi ne an al ars aras maxluqun luñ bind min yaquutatin xamraa ci wurus wu xonq mm-hmm. nee na anas ñu ko bind ci wurus wu xonq mm-hmm. bu dama bay na xat xuturayhi diggante ñaari wàll yi ni mu soree mm-hmm. masiratu xamsiina alfi sana mu ngi toll ni dox ak fukki junne at kon moom bind ci téere moom ne